xanaa di fàttaliwaat rek maanaam man damay wax si wàllum euh, dundee bi bi ñuy dund Matam parce que man dama part personnel mënuma comprendre kilifa bu toll ne Cheikh Amar ak lu mu représenté représenté si dëkk bi ak nu mu mel ak darajaam ñu nekk face face bi bi ne nga xam te ne moo nekk Matam nekk foofu noonu nekk ay conditions yu tar tar yoo xam ne maanaam kenn mënu ko expliquer am na yoon bu ñu ko waxoon sax maanaam doo ko a gëm. te ñun ñëpp boo xoolee dëkk ñu fay étranger lañ ñii Dakar la ñu dëkk ñii Saint-Louis la ñu dëkk ñii Touba mais ñi déplacé ñu yóbbu ñu foofu noonu dundal ay conditions yoo xam ne amul feneen depuis 2008 ba léegi oto bi ñu yóbbu sax pour ñu dem liggéey problème la da ngay dox 3 kilomètres si àll bi muy taw des fois ngay daje ay jaan si àll bi munoo comprendre daal yooyu yëpp ñi toog toog fa di ko di fa muñ li si gën a jaaxal nag mooy chaque jour dañuy dégg ne Cheikh Amar mu ngi maye ay millions mu ngi maye ay millions. la fois passée ko ci daawaat géej am na waa joo xam ne sax bon jërë muy si tëdd turam Cheikh Amar may na ko 10 millions mun naa ne ko taxum na sax ñun fayeekoo ñu si ay njaboot yoo xam ne ay famille yoo xam ne kër lañ xam nga ñii seen i sëy tas nañ ñii génnee nañ leen seen i locataires yi ñu nekkoon am na si ñoo xam te ne sax seen i doom dàgg nañ leen parce que fayatuñu bon di boobu léegi nag fépp ñu waroon dem dem nañ fa. lépp képp ku ñu waroon waxal wax nañ dem nañ si gouverneur sous préfet préfet inspection du travail tribunal du travail ñëpp wax nañ leen même ministre de la mine sax toog nañ ak moom waxtaan ak moom moom nañu bu fi jógewee incha allah lépp dina saafara mais bon boobu léegi dara ñun nag dañoo sonn wax dëgg fa yàlla te instant bii nii président de la république Macky Sall yow la ñuy woo lépp loo si mun a jàpp nga jàpp si parce que situation bi instant bii nii ëpp nañu doole te nag bëgguñu. débordé bëgg ñu débordé sës nañ sës boo xam ne boo toogee 10 mois fayee ko sa njaboot yaakaar si yow sa yëpp yaakaar si yow nga toog fi nga toog wax dëgg fa yàlla boo defee leneen tamit pour man kenn du la condamné